Yo un dernier intervenant si si cas tenue la tenue de maintenant candidature parce que PDS quand même. Euh, non mais par par par point après les candidature après on termine par la presse. Hein, n'est-ce pas bien sûr par rapport à, à cette actualité le cas Ousmane Sonko euh, d'armes peut-être bu ñu ko jox dégg nga conférence euh, euh, Yewwi Askan Wi peut-être niñ demee niñ ko gisee mais peut-être bataille tey waxaguñu qu'est-ce qui se passe concrètement est-ce que dina arrêter grève de la femme ou pas. bon li ma njëkk a wax moo di d'abord Serigne Touba Serigne Mountakha li nga xamante ne moo ko parce que Karim Wade ba mu fi entamé grève de la faim sëñ Sidi Makhtar dafa yónnee ci moom quatre jours après la grève jox ko tàndarma Karim Wade yemale ko foofu bu ndigal la woon Ousmane Sonko aussi dafa am loo xam daf ko waxoon sëriñ bi bañ ko bañ ko demee en mars mille vingt et bi sëñ bi waxee waxu bor sax dana leen ko déedéet yow soo waxee rek ñun dañuy jëfee parce que li ngeen ñuy wax ndigal lay nekk. Hmm. donc man jàpp naa ne. laaj ko ko suñ ko seetsee wax ci moom wérgu yaramam wax ci moom grève de la faim bi nga xamante ne actuellement moom lay observé mu yëkkati tàndarma loolu même su ko sëñ waxul mooy. ndigal la pour nga dagg. arrêté. léegi nag beneen pàcc bi aussi mooy ñi ko waroon yóbbu yóbbu nañ ko je crois parce que. Mhm. am na lu ma liir daal mais xaw ma ndax nag euh, lu avéré la parce que j'ai pas eu le temps de le de le de vérifier. mais mais ci seen conférence de presse bi ñom nee ñom ay de Mbodj nek ils n'ont même pas pu. waaw loolu lañu wax donner euh, les dates. c'est le médecin qui a dit que. mu mënuñu ko gis parce que il il est trop faible. waaw donc médecin moo ko. mais ñoom ils l'ont vu. waaw dem nañ. ils l'ont c'est ce qu'ils ont dit moy loolu motax mané donc. bu fekkente ne dañ ko fekk dans un état boo xam ne moom il n'est pas en mesure kooku mënuñu wax ne te gën ndigal bu fekkoon ne dañ la fekk dans un état de conscience ñu jox la nga ne jëluma ñu ne Ousmane te gën ndigal te jàpp ma ne fi ñu toll nii tey bu ñu ko fekkoon ci benn état boo xam war nañ mën a wax ak moom mu dégg li ñuy wax suñ ko joxee dina mettre fin à cette grève parce que li ci amoon solo mooy. la waaw la symbolique dugguñu. Habib Sy a négocié sa pour que ñaar c'est par rapport c'est comme s'il l'avait vu.

te loolu jàpp naa ne ñu bëri dafa am loo xam xamuñu ko ci sëriñ bi mos jógee di ci wax am na loo xam nag du nekk wax waxu kaw mais waxu biir lay nekk te man li may wax dama am ci lu ma leer te loolu c'est important sax ñu souligner ko affaire bii li may wax ni président Macky Sall dama ne ba mu ñëw na fi Touba ñëw boo xamante ne nii moom sëriñ bi waxtaan nañ te loolu turam juñu jëm na fa donc sëriñ bi li mu ci waroon wax moom wax na peut-être am na côté boo xam ne aussi lañ fa waroon jëfee jëfewuñ ko mais sëriñ bi moom mosu ci jógee di ci wax du la loo xam ne nag dañuy xëy bind ko ci presse beeg yooyu mais loo xam ne man ci lu ma leer loo xam ne ni sëñ bi moom kàddu mosu ci jógee donc képp ku ciy def aussi procès ci sëñ Mountakha aussi wax nga loo xam ne xamuloo ko taw aussi toñ nga sëriñ bi loolu moom vraiment je voudrais que ça soit clair concernant maintenant la conférence des avocats de Benno Bokk Yaakaar pour man jàpp naa ne bu fekkente ne réellement sortie boobu c'était tout simplement pour dire que ñun nous allons nous constituer partie civile ci li loolu moom jarul conférence de presse <laughs> loolu moom da ngay bàyyi ba affaire yi commencé nga ne man partie civile la wala nga notifié ko bu fekk heure ba nga xamante ci nga ko waroon def mais génn uniquement conférence de presse pour dire que lii ak lii ak lii parce que li ñu fi wax yëpp ay répétition la li ñu fi wax yëpp mhm. nit ñi wax nañ ko ba bàyyi chargé ak li ñuy kii yëpp loolu moom je crois que il ne revient ñoom waaw moom laa la non en fait si vous voulez répondre à des intellectuels, et je crois que ce n'est même pas le rôle des avocats. Mhm. mais Benno Bokk y dafa am structure dafa am ay cadre c'est-à-dire am na un cadre de réflexion foofu ay xawma ni koy say seer xawma mais amni na yaa groupe de réflexion xam pour man nous war dire jël en tout ce qui est intellectuel foofu c'est-à-dire bu fekkee ne dafa am ay sorties je crois que si ce parti était organisé comme on le dit am nous xam ñoom ñoo war a génn kuréel yoo xam ñoom ñooy génn wax la wax ba pare pare nañ mais ce fait ne ça tire dans toutes les directions ñii dañuy wax fii ñii dañuy wax fii finalement la communication n'est même pas calibrée te man jàpp naa ne un parti de doxe par parti socialiste à l'époque boo dégg ñu daan wax bu ñuy tontu dafa am ñoo xam ñu daan tontu ku ci mel ni à l'époque bu waxaan rek keneen dootul wax donc daf ci am ñoo xam tey bu seen kaddu jibee rek waaw bu seen kaddu jibee rek ñeneen ñi dal ñuy wax mais gis naa ci ñoo xam ne wax dañuy wax sax finalement dañuy dem duñu xam ça da ngay xeb waa APR parce que tu le dis que d' abord le niveau. Eh, Dédouane Seydou Saliou. non non non non. duñu xeb nag jox ñu cër. non non non non non non ah? non non wax ma ne non dama ne. dama ci gis texte yoo xamante ni pour man jàpp naa ne jarul woon génne parce que bu fekkee da nga génne texte boo xamante ni ñu ne ci yéen la jógee texte bi c' est mal écrit. texte bi amul profondeur finalement les gens vont se poser question moo tax ma ne finalement dañuy tuddee sen bop or su fekkee ne c'était dans un cadre de réflexion bo xamante ni ci yéen la jógee ñu ne nii la ñuy bu benn kàddu grase ba génn jaratul yeneen interview génn mais fi ku ci nek da nga bëgg a sa bop ne man maa ngi tontu sans pour autant même que ça soit même de l'aval du parti man non la ko jappé concernant maintenant les avocats pour man aussi japp na lolu loolu du rôle avocats yi amna na leen loo xam ñom moom lañu wara def donc du ñom ñoy donte ay pétition et puis aussi pour wax ñom ñoom dañ se construit partie civile en disant que ñom laaj nañ li nangam ak nangam ak nangam ak nangam aussi lolu du jarul conférence de presse amna fu ñu wara jaar bu mën wax lolu et en plus de tout cela le ma jaaxal moy la wax yëpp Sonko def na li saccage fi incendie fi mais 40 morts yi moom doo ko dégg fenn les morts les morts daal vraiment les morts ont tort moor yi doo leen dégg fenn discours yi moom moor yi doo dégg fenn c'est-à-dire on n'impute personne moor yi doo ko dégg ñu wax fenn sinon bu ñuy wax ne woy diw yaa leen rey mais ba léegi moor yooyu kenn du ci wax personne n'en parle même ñiy wax sax naa ne Felwine danga nga waroon wax lii da nga waroon lii mais musuñu wax ne Felwine waroon ngaa wax ci moor yi mukk kenn du ko wax c'est-à-dire que donc finalement nit ñi man moom wax naa ko léegi waaye non yow laa wax mais mais ñi mais ñi bind laa wax ak ñi ñi def conférence de presse. Ah. donc finalement ñi leen soxal yi ñu université mais ñi ah. ñàkk seen bakkan man jàpp ah, ne bu Sénégal bakkan ëpp mais malheureusement ñi génn yëpp. amul kenn ku ci évoqué par respect pour la mémoire de ces gosses qui sont morts amul kenn ku ci wax pour man les avocats de de l'État ils ont raté une occasion vraiment de se taire. Ah parce que, mais oui, ils ont raté une occasion de se taire parce que finalement, les gens sont sortis pour ne rien dire. D'accord. Parce que pour moi, Si c'était pour gagner charger, parce qu'au moment où les gens même parlent de la santé de son corps, tu as l'impression, comme Nico Niwakhele, que ça dit, ce manque d'humanisme-là, ça dit pour gagner enfoncer, pour enfoncer le gars-là le Sénégal le Sénégal le non, melu le non. Mm. ce pays là a fondamentalement changé Qu'est-ce hein. qu'il affaire fait bi gentleman qui wax dans lit c'est ça qui manque aujourd'hui dans la politique. Mm-hmm. parce que la politique bu demee ba nga xamante ne nit ki dee lañ koy là. parce que aussi nañ ko wax qui nekk là, ay dee lañ yénenté ci biir politique bi que ça soit d'un camp ou de l'autre. et Abib, a alerté sur cette situation d'ailleurs, ci conférence de presse buñu tollé fofu buñu tollé fofu ça signifie qu'on n'est plus dans la politique on est dans autre chose mais on est plus dans. dans l'animosité peut-être parce que la politique aussi la femme am ay règles te règles yooyu c'est-à-dire da ngay nangul nit ki wax même so ci àndul nga nanguloo ko. mais su fekkente ne nit ki limuy wax non seulement nanguloko, ko mais en plus que nga souhaité ko monsieur ba diko dal ba bakana war ci war mu war ko ci ñàkk on japp na ne on est plus dans la politique on est dans autre chose. bien ben, ben, euh, ben, professeur 30 secondes pour préciser. balaa ngay dem ci benen point bi. parce que dégg sank euh bey mu ne.